you ginnaaw ba mu amalee ay jongante yu am solo moomee di uh, Pape uh, Matar Sarr di l'international uh, sénégalais moom nag ginnaaw ndege ni démb amaloon na ay jongante yu am solo foofee ca France ak équipe boobee di FC Metz naam sax kii di Pape Matar Sarr moom nag wane na xarañteem ak mën-mënam ci équipe boobee ñu naan Metz ndaxte ba championnat bu France tàmbalee ba léegi moom nag mu ngi joué foofee ca clubam ñu naan Metz bokk na ci joueurs yi nga xamante ni ñoom lañ gën a ràññee ci équipe Makhtar Sarr moomee sax am di ab milieu de terrain am ci lu toll ak 18 ans di ab joueur bu nga xamante ni mën-mënam kenn naatable ko ci biir terrain moom nag bokk na ci joueur yi nga xamante ni ñoom la coach bi euh, gën a ràññee ci waaye nag kii di euh, président club ba di président bu Metz nee na nag bu ñu moytulee dara rek Ismaïla Sarr du eggali championnat euh, bu France foofee ca Metz ndaxte am na ay club yu mag yu nekk biir Angleterre Premier League yoo xamante ni soxla nañ doomu gaynde ñaay boobee ginnaaw ba mu amalee ab jongante bu am solo démb moo ko nant naam sax dañoo ñàkk match boobu waaye nag match boobu ba mu jeexee ñii di club yu mag yi nekk foofee ca Angleterre ñu ngi waxaale ki nga xamante ni mooy président bu Metz ngir récupérer doomu gaynde ñaay boobee di wuyoo si turu Pape Matar Sarr waaye nag ki nga xamante ni mooy président club boobu nee na doomu gaynde ñaay boobee am na équipe yu mag yu nekk biir Angleterre yu koy waxaale kon ku si mel ni Chelsea wala Manchester United wala Manchester City doon ay club yi nga xamante ni seen niveau kenn naatable wu ko wala championnat bu Angleterre kii di Pape Matar bu fa demee rek dina yokk li nga xamante ni mooy niveau ndax championnat Angleterre mooy championnat bi nga xamante ni moo ëpp niveau foofee ca Europe mu doon lu am solo loolu waaye nag Pape Matar Sarr boobee sax bu ñu moytulee dina jeexal saison foofee ca Angleterre naam sax commencé na fi nga xamante mooy Metz ak li nga xamante ni am na solo loolu moom sax ginnaaw saison bi ñu génn amaloon na lu toll si vingt deux match vingt deux match sax ñu nemmeeku ni kii di Pape Matar Sarr dugaloon na si ñetti bii si saison bi ñu génn moomee nga xamante ni fii lañ ko formé si benn académie bu ñu ko kookoy nag mooy Pape Matar Sarr di ab milieu de terrain mën loolu lu muy def ginnaaw ba mu amalee ay jongante yu am solo fii si sunu réew ak équipe nationale bu Sénégal moom Pape Matar Sarr boobee sax demaloon na foofee ca tugal ngir ngir ñoŋal fa li nga xamante ni mooy jonganteem wala wane xarañteem ak mën-mënam si club bu tugal yooyu sax dana demee équipe bu ñu naan Metz nekk foofee ca France waaye nag équipe yu mag yi nga xamante ni gis nañu njëriñu Pape Matar Sarr boobee sax euh, loolee sax waral ñu gisante ki nga xamante ni mooy président bu Metz ngir euh, récupérer doomu Gaynde Njaay boobee sax di am international sénégalais moom nag lool na ay jongante yu am solo ak Sénégal loolee sax tax kii di Chelsea wala Manchester City wala Manchester United bëgg kaa récupérer ngir ngir mën a yokk li nga xamante ni euh, mooy dooley seen équipe boobee sax nekk foofee ca Angleterre moo xam Chelsea la wala Manchester City wala Manchester United.